di julli ci bi Muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di sant xadimu rasul suñu yaakaar tey ëllëg di bëgg ci jataay bii tey nga xam ne sëñ Abibu moom suñu maam Cheikh Mamadou Fadal moo ko jiite mooy Touba ca kanam di sant suñu borom di ñaan suñu Muntaxa Mbakke suñu borom yàggal ko fi lool ba liggéey bi muy liggéeyal xadimu rasul naal yi mu naalal xadimu rasul mu àggale ko te ko ak moom te lépp dëppoo ak ngërëmal Serigne Touba. di sant njaboot Serigne Touba fi teew yëpp. li nga xam ne li gën a taaru ci jëfi doomu aadama moo di ndimbal da ca fekk loxol borom mbay itam ci sa réewu tànk euh, état mënut def lépp ñu jàppale état ci loolu. tàmbali ko day exemple boo xam ne wane na ne sëñ Touba indépendance bi mu doon ñaan mooy lii mooy ah, mooy indépendance économique lu am solo te bu ñu àndee lu ñu mënta def rek amul man day ku ñëw ci man ne ma danoo bëggoon a jëf ci Touba ci kanam wala ñi ma koy digal ñu koy def dama naan leen sëñ Abibu day lépp lu nit teg ci loxoom mel ne ne teg nga ko ci loxol Xaadimu Rasuul te noonu noonu lay àgg kon nag yàlla na yàlla àggale naal yëpp yëpp ci bopp te yàlla may nu wér ak kàttan gun ko gën a mën a jàmmoo gun mën a toppee ndigalal sëñ Tuubaa yëpp gun mën a jàppale jàppalee sëñ Muntaxa ci yan bu diis bii nga xam ne mu yan ko te eh, suñu borom aar ñëpp di jaax yi say dugub ci daraje Xaadimu Rasuul jërëjëf